jërë ngeen jëf mbokk internet yi tey fukki fan ci weeru février atub 2022 yemook màggaluk poroxaan di bis boo xamante ni ñu ngi ko jagleel soxna su am tolluwaay ak dayo bu rëy ci diiney lislaam rawatina ci yoonu murit te muy soxna jaara buso ñu fas yéene dellusi ak yéen ci taarix ci jaar jaaru soxna su sell sile di maam jaara turam dëgg di Mariama Bousso mi ngi gane ci àddina ci atum 1833 ci gox bu ñuy wax Golléré nekk foofe ca diwaanu Fuuta Jolof soxna Jaara Bousso doom la ci Mohamed Bousso ab askanam nag ay shérif lañ dooree ci imaam assan nekk doom ci Ali moom moomule di doom ci Abdul Muttalib soxna Jaara Bousso ab sellaayam bi kenn dootul naataable moo waral ñu doon ko duppee jaaratullaahi maanaam ku jige yàlla moom soxna jaaratullaa mësta mooy waxtu julli te lu ko daan jiitu daf daan ànd ak njàpp julli yooyu mu daan julli saay bu ca noppiwaan daf daan toog di wéet lu dul sax weeru koor daan na faral di woor lu bare bari moom soxna su sell sile ak dundam gàtt na loolu ndax fanweeri at ak ñett kepp moom la def ci àddina waaye dund goo xamante ni dafa bari ay jàngat loolu rawatina ci ñii di jigéen ñi. ndax nemmeeku nañ ci jigéen ñi ni yenn saay seeni ay jotaay bu ñu dajaloo di def liggéey dañ cay wax ay wax yu sew ak yoo xamante ni amul njariñ waaye moom soxna jaaratul la mile bu doon liggéey ay liggéeyu këram walla boog. muy jaabante ci diggante teen ba ak këram ngir root daf daan faral di yëkkati li ñuy wax dalaayilul xayrat yi nekk ab bayit boo xamante ni ñu ngi ko jagleel kii di sangu-sang yi yonent bi sallallahu wa sallam moom soxna jaara lu ci ëpp ci tempsam daf ko doon jagleel lii di jàngum alxuraan wala sax nag mu yëkkati ay salaatul ala bi di ko jagleel yonent bi moom soxna jaara mën nañu wax ni dundam yépp defu ko ci lenn lu dul wut ngërëmu yàlla waaye loolee nag jaar na lu baree bari ci ki nga xamante ni moom moo di boroom këram di sëriñ Mamor Mbàkke nga xamante ni soxna jaara bu bëggul woon lenn lu dul di wéy ci ay ndigalam ngir am ngërëmu suñu boroom soxna jaara bu sow ak nangu gu mat sëkk ak xam wareefu sëy a jëmale ci boroom këram bi di Maam Mbàkke moom la mës a taxawee li koy firndeel bu di histoire am bi ñuy raconté ay génération yu baree bari moom soxna jaara bés mën na am muy taw ab taw bu metti kii di boroom këram sëriñ Maam Mor Mbàkke daal koy jox ndigal ngir mu teel ko aw sàkket moom maam jaara bu sow daal di ndigal te sàkket gi ànd ak moom ba ni fajar di jotee kii di sëriñ Mamour mbàkke ginnaaw ba mu ko joxee boobu leen ndigal daf ko fàtte woon daal di dem ci biir di def lii di ay naafilaam ba mu xëyee fam ko bàyyi woon fa la ko fekkaat moom maam jaara Bousso mu taxaw di woyee ndigal bi ko boroom këram joxoon moom maam jaara Bousso am na itam beneen nataal ci moom buy wax ni bés boroom këram bi lee di sëriñ Mamour mbàkke mës na koo ñaan lii di ndoxum naan moom soxna jaara keroog ba mu demee ca teen ba fekk fa buum ngir root waaye bañoon a gàntal ki di boroom këram moo tax mu duggal boppam ba ca biir teen ba root ca ndox ma fa muy ballee daal di koy indi mu naan boobule histoire ñi nga xamante ni ñoo doon yewoo ca boobule gox dafa des seeni boppu ba tax na dañu ko def ab jàngale ngir saa su nekk di fàttali ñii di jigéen ñi seeni woreef jëmale ci seen boroom kër ak itam ñu roy ci soxna su sell si di jaara beneen jàngale bu ñu mën a jàpp ci soxna su sell sile mooy ku miinoon liggéeyu kër la saa su nekk ci xar kanam gu yànji ak mbegte la daan wéyee di jëfee ndigal yi kii di boroom këram waaye itam di toppatoo ay mbokkam ak i ganam boobule jamono li nga xamante ni moom moo di liggéeyu kër ak toppatoo kër metti woon na loolu bu ñu fàttalikoo poroxaan ci yooyule jamono bekkoor ak tàngaay bu méttee métti moom lañ fa doon nemmeeku waaye soxna jaara saa su nekk lii di waree fam daf ko daan def ca na mu mësta ñaxtu te mësta taay lépp ngir am gërëmu suñu boroom bis bi tey ñu koy jagleel muy màggalu poroxaan am na taarix bu ci làkku moom soxna jaara bu buso foofee lañu ko denc ginnaaw bi mu làkkoo ci atum 1866 ay at daldi dox suñu kanam laata kii di sëriñ basiiru woy juram bu góor daldi koy jox ndigal ngir mu dem ca dëkk boobee di poroxaan wéttali maamam jii di soxna jaara moom bile ci noonee la toppee ndigal wàcc ca dëkk ba daldi di nag ràññee fi ñu denc maamam jile di soxna jaara Buso laata moo tàmbali liggéey bi ci doone màggal bu njëkk bu poroxaan ñu ngi ko amal ci atum 1952 ginnaaw ba ñii di taalibe yi daal di koy sàkku ci sëriñ Basiiru keroog ca bés ba bokk na ci lañ ci doon def di berndeel waaye itam di jàng li di alxuraanul karim jamono di dox ba màggalu poroxaan daal am dayoo gu màgg gi mu am ci jamono yi ñu toll nii. ay junni junni doomu aadama ñooy dem ca diwaanu poroxaan ngir màggal bés bi ñu jagleel soxna su sell si foofee li nga xamante ni nag moom mooy teen bi soxna jaara daal duggoon ngir rootal boroom këram ndox bari na ay soxna yu fay dem di ko ziyaare di wax ni nag ndox mu fay génnee ndox mu sell loolu la bari na ay ajo yoo xamante ni daf koy faj. bokk na itam ci bërëb yoo xamante ni ñoom taalibe yi dañ fa dem ca diwaanu Touba muy garab googee ñu wax ni sëriñ Touba xaadimu rasul gannaaw ba muy nekk tout tànk di am lu yemoo fukki at ak ñaar. daan na fa faral di wéetoog boroomam di jàng alxuraanul karim lii di màggalu poroxaan mooy ñaareelu xew-xew bi gën a màgg ci yoonu murit ginnaaw lii di màggalu Touba ñu jagleel ko kii di soxna jaara Buso nga xamante ni mu nga foofee ca Poroxaan daara ji di daaray soxna jaara Buso ay maam jaara yu baree bari ñu duppee leen soxna jaara mu sell mi ñoom lañ fay tàggat di leen jàngal alxuraanul karim waaye itam ay soxna yu yiw te sell yi ñu war a doon te lii di askan wi daal koy soxla moom soxna su sell si di maam jaara Buso la boroom këram bile Maam Mor Mbàkke ginnaaw bi ab xolam seddee loolu ci moom daal di tiimoon ni ko soxna jaara dinga am doom joo xamante ni daañu ko topp fu ne di ko dégg fu ne itam ci àddina doom joojule tey moom mooy sëriñ tuuba xaadimu rasuul nga xamante ni moo taxawal yoonu murit kon nag jigéen ñi roy leen ci soxna jaara